jëf mbokk internet sans limite seen point com dalee nag jàmm ci seen récap du jour ñu dégtal leen li gën a fës ci xibaar yi coronavirus fii ci Sénégal 127 nouveaux cas positifs euh, la ñu amaat tey ci jeudi bi 9 cas contacts suivis un cas importé 13 cas issus de la transmission communautaire Père Mayem Ngoné nekk chroniqueur fële ci euh, seen TV moom moo rek piqué ab euh, colère ginnaaw bi nga xamante ne nii kii di Modou mbay dafa fësal rek ab euh, vidéo ci émission boobule vidéo boobu nag Père Mayem Ngoné rafetlu ko te di ci indi rek ay euh, tontu dinañ ci ñëwaat ci lu gën a yaatu conférence de presse euh, kii lee di euh, Babacar Ngom bu Sedima ginnaaw ba mu fasee leen ne ki waa Dakar Actu bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy teewee conférence de presse boobule groupe de presse boobu nag daal di génn daal di wedd lool tamit ba mu set mbokk internet yi ñu ñëw ak yéen ci jukkeek xibaar yi comme ni nga ko waxee ca ndorteel ba la ñuy tàmbali xibaar yi ak mbiri coronavirus fii ci Sénégal tey ci jeudi juillet 2020 ñu am nag lu yem ak 127 nouveaux cas positifs cas contact la un cas importé bu ñu enregistré fii ca AIBD ak 13 cas issus de la transmission communautaire am nag lu ñam lu yem ak 72 nouvelles guérisons 36 cas graves ñuy prendre en charge fële ca service de réanimation ak it deux nouveaux cas de décès liés à la Covid 19. ñu jàll nag ak yéen ci coow lu jëpp ci conférence de presse bi nga xamante ni moom la Babacar Ngom bu Sedima daal di rek doon def euh, tey jii nii euh, ci euh, jeudi bi conférence de presse boobu lee nag du journaliste yëpp ñoo ci am accès ndax it nag dañoo tënk ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko war a teewee na nag ñi di nga xamante ne ñoom ñoo organiser conférence de boobu lee dañoo woon joxe woon rek benn information comme quoi que ne Dakar Actu dafay ñoom nag ci seen wàllu bopp groupe de presse boobu daal di génn rek def ab démenti tey wax rek ni Dakar Presse musul jox accord ni nga xamante ne moom mooy groupe Sedima pour ñu utiliser logoom daal di koy def seeni affiche conférence de presse boobile ci noonu nag ñu mën cee jàpp rek ni conférence de presse boobu duñ ko diffuser en direct fële ca Dakar Actu waa Dakar Actu nag lu ñu xamle wat ci mbir moom rek ni euh, mooy dañoo euh, couvrir contentieux bi nga xamante ne moom moo opposé euh, ñi kii di Babacar Ngom Sedima ak baykat yële journalisme te daanaka foofu la ñuy yam ak mbir moomile ba tey nag dañuy desandi euh, ci mbiru conférence de presse bi groupe Sedima organisé le conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie ñu di peeko CORED yéen a yàbbi ci wàllu woowee tey wax rek que ni ñoom amuñu woon benn droit daal di rek restreindre li nga xamante ne moom mooy conférence de presse boobule ndax li ñu fay wax ci intérêt public bi yëpp la concerné CORED nag lim xamlewaat yéen ci ne nii dañ leen fay ngir ñu diffuser conférence de presse boobule te mooy que rek li ñuy dippee wàllug déontologie te ñu koy jàngale ci mbirik journalisme dafay tere ñuy rek jaawale métier journaliste ak celui de publicitaire ndax bu delloo nag ci wàllug euh, publi reportage foofu noonu mën nañ leen fa fay waaye ki nga xamante ne nii journaliste la warul nangu benn yoon ab consigne direct wala indirect buy jóge ci ay annonceur waa conseil nag ñu daanelee seen i kàddu rek mooy que ne ñu ñaan presse bi yëpp ñu def li ñu tuddee ab journalisme responsable boo xamante ni dafay prendre en compte le droit du public à une information juste et équilibrée. bokk na itam ci li a fës ci xibaar yi ab conférence bi nga xamante ne nii moom la ñu gis ci réseaux sociaux yi te mooy que rek ab soxna suy wuy ci turu Aysatu moo rek fësal ab xibaar daal di wax rek ne naam am na jëkkër il y a deux mois waaye nag mu ngi cofeel ci ki nga xamante ne nii moom la bàyyanteel laata muy euh, dem rek pour ñu euh, taxu ko te soxna soosu nag di Aysatu dem na sax ba wax ne cofeel bi nga xamante ne moom lay moom la am ci ki nga xamante ne moom la euh, bàyyanteel mosu koo am ci borom këram ki nga xamante ne nag moom mooy Oustaz Tayib Socé daal di indi ay leeral ci wàllu woowee daal di wax rek ne bépp jigéen boo xamante ne dafay wéyal di am cofeel ci ki nga xamante ne moom la bàyyanteel laata muy am borom kër na jàpp na rek mu ngi mooy boroom këram kii di Oustaz Taïb soose nag moom recommandation yi mu def rek mooy laata ñu dugg ci góor na fekk rek ñu am cofeel ci moom laata rek ñu koy euh, moy ndax it nag lii di euh, islam dafa tere loolu tey wax rek ni euh, pratique boobule dafay rek déstabiliser ab mariage te jàpp na ni loolu tey jii nii mooy problème bi gën a bëri ci luñ koy tudd ci yenn ci ay couple yi ab mbir mu yéeme itam moo am fële ca Touba ab waaye bu toll ci 58 ans moo doon rek bëgg xaru fële ca Touba tali bu bees sur la route de Ndamatu moom nag li mu bëggoon def rek moom mooy rendi boppam waaye rek daanaka askan wi yeewu foofule ak yenn ci ay nit yu doon jàll ñoo ko rek gis ginnaaw ba muy bëgg xaru daal di koy rek mujjee euh, arrêté moom nag waa jooju la ñu mujj ko évacué fële ci hôpital Matlaboul Fawzayni takk der yi nag daal di mujj ubbi ab enquête ngir xam ana lan moo tax waa ji bëggoon a def fa ma boobule. Père Ngoné nekk fa chroniqueur fële ci Sen TV moo daal di rek piqué une colère noire jëmale ko ci li nga xamante ne moom mooy Modou Mbaye. Euh, ginnaaw ba mu fësalee rek ab séquence vidéo ci émission mobile di euh, Bantamba daal di koy def rek image yu du jour euh, Père mbay ngoone nag rafetluwul image yooyu noonu jàpp na ni ni moroomu baayam la te image boobu noonu mi ngi am il y a dix ans de cela ndax jàpp na ne ku àttana def baayu jàmbur li ni mel war na rek mën a génne itam ay image yi baayam di ko fàttali rek ni mu dem jëli image yi nga xamante ne ni moom moo amoon ci face à face ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye ak Yékini ak kàddu yu fa jotoon jib yëpp ñu jëmale ko woon eh, ci ki nga xamante ne moom mooy El Hadj Bécaye Mbaye eh, ci as tënk nag ki nga xamante ne moom mooy Père Ngoné li mu xamle rek mooy eh, ki jël séquence vidéo boobule daal di koy rek publier li mu def tegginewul ndax it nag mënoon na jël vidéo complète bi rek daal di koy dugal ndax it lii amul benn teggin. man bu ñu calculer woon ñoom ñu ne 75 bu ñu calculer woon 75 hectares rendement yi mu leen di jox ci année bi ci ci ci nawet bi ñu ne nangami tonne la ma jënd ko chargé ko ay camion yóbbul leen ko loolu pour vous montrer que impact bi mu war a am sur les populations réellement même ñi leen di xeexloo xooluñu seen njëriñ parce que sa njëriñ mooy kiy ñëw samp fi loo xam ne da ngay liggéey 12 mois sur 12 say doom di liggéey say mbokk di ñëpp di liggéey loolu lañ leen indil loolu nag kuñ ko indil bëgguloo ko ah yàlla ñun mu ko waaw euh, corniche dégg naa coow li wax dëgg yàlla euh, yuusu sax moo ma woo ne ma paap dama am lu ma naqari sama yaay mu ma woo léegi man nag mënuma waxantu damay bu may wax damay wax li li nekk suma xol xaw ma ay xaw ma langue de bois sama yaay moo ma woo ma mère est malheureuse parce que lii la abi di wax ma ne ko abi lu muy wax tu me mu ne ma si abi ngi def ay poste xaw ma lan lan lan lan ma ne ko Youssou mu ne ma ne ko ne t'en fais abi c'est ma xaw ma lu mu wax de dégguma ko mais abu abi moom mënu ma wax dara dara dara lu ma jàpp est-ce que xam ngeen ne ba léegi nii damaa dégg na ñu ngi may saaga nit ñi wax ñëpp nag dama ko dégg rek man xaw ma lu ma kenn wax liiruma dégluwuma dégg naa nag wax nañ ma lu nekk lu nekk lu nekk lu nekk lu nekk Aby xaw ma lu mu wax mais suma rakk la Youssou suma xarit la foofu la yem foofu la yem ñiy saaga nag ñi saaga ñëpp baal naa leen boy boo nag ñuy saaga di continuer di saaga di saaga may naa leen suma der bii nanu saaga saaga saaga ba doyal dootuñu ma dégg mukk ci lu mel nii ma ci wax man daal benn feebar laa am mooy bëgg liggéey ñaareelu feebar bi mooy bëgg Sénégal lu ma dal nag loolu moo ma ko teg lu ma dal bëgg Sénégal gi ñu fonk ñu danga naan cëpp fenn joxe sa passeport ñu koy xool di ko wëlbati nga gis keneen ku gàtt ku bët yi sew mu jaar a fële sànni passeport bi rek jàll am na lu ko waral am na lu ko waral man yooyu dama ciy taxaw seetlu am na nu ñuy taxawee am na nu ñuy liggéey am na nu ñuy fonke am na nu ñuy gëmee sunu bopp am na nu ñuy bëggee suñu bopp am na nu ñuy jàppalantee àddina bi yëpp aussi danañu gën a jàpp gën ñu fonk gën ñu bëgg loolu ci lañu war a tabax taxaw liggéey te yéen presse am ngeen ci liggéey bu mag a mag a mag am na yoo xam ne da ngeen ko war di gëstu di ci yee nit ñi parce que malheureusement nag on a une population ñi ci ëpp ñëpp jànguñu politique bu ci dugg bon loolu lañ yaakaar loolu lañu gis aussi parce que ñi koy yëngal euh, ci politique la ñu nekk ma yaakaar ne euh, euh, ñoom la ñu sénégalais la ñun ñëpp am na loo xamante ne toog waxtaan ci si njëkk ak euh, teranga moo koy régler mais du nekk di ko xëcc di ko yóbbu foo xamante ne waru fa yegg euh, Charles yaa ngi may laaj <laughs> question boo xam ne man dafa ma sax xaw jaaxal dama koy dégg nag ci ñu bare bare bari di ma ko wax euh, que da am ay ambition présidentielle euh, pour les prochaines élections au départ ba ma ko jëkkee dégg nag commencement bi ay ree la ma daan def mais léegi gis naa ne dootul ay waxu wax rek parce que mu ngi jël proportion waa ëpp ma bëgg leen wax ne man Babacar Ngom politique intéressé wu ma politique intéressé ma mosuma intéressé te sax duma intéressé ngeen baal ma ma dolli ci tuuti bi ma commencé liggéey jamono boobu sengoor moo fi nekk may liggéey Abdou Diouf nekk fi ñaar fukki at mu ma jëkk a décoré chevalier dans l'ordre national du Lion et du Mérite Abdou dem Abdoulaye Wade ñëw 12 ans moo ma def commandeur dans l'ordre national du Lion mosuma politique mu dem Macky Sall ñëw moo ma def grand officier dans l'ordre national du Lion mosuma politique li ma ci jot a def nag ci politique mën naa leen ko wax 2012 sama doom ji Anta Anta Babacar dugg na ci politique boobu président Macky Sall mu ngi ut réew mi mu ànd ak moom lu mat ñeent ba juróomi weer di campagne di wër dëkk bi def ci li mu mën ba yàlla def président gagné loolu def nañ ko bañ koy def it soutenir naa ko ci xalaat ak ci suma defe naa sax c'était la seule fois de ma vie ma vivre lu mel noonu jegeñ politique autant waaye moo dolli leen ci lenn bi élection yi desee deux mois mag président Macky Sall dafa ànd ak moom dañu ñëw ci kër gi ñu ànd dugg toog ci salle bi waxtaan ba doyal ma ne ko bu yàlla defee nga gañe li may wax xam naa ni mu ngi koy dégg dina ko dégg ma wax ko ne ko bu yàlla defee nga gañe élection yi dama lay ñaan anta moom na dellu siwaat Sedima mu ne ma Babacar loolu lañuy def loolu itam la def dama leen di laaj nag ban sénégalais ngeen gis mu sóobu fi ci politique sóobu bu toll noonu jël risque yu toll ni yooyu ma jëloon élection yi gagné président ba gañe nga ne ko baax na voilà mbokk internet yi loola jotoon a ruus ci xibaar yi euh, bëccëg bi cant ak ngërëm leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jox